dans les mêmes conditions que celles de ses prédécesseurs. Le cas échéant, Nias, qui sera fort probablement le dauphin constitutionnel du président de la République, n'aura pas pour autant une présidence calme. S'il a acquis valeur de principe, la séparation effective des pouvoirs sera encore récusable publiquement. Fatou Bintou Konté dañuy des ak yow ci édition spéciale bi ni ngi ñu ko baaxee ci euh, nataalu ki nga xamante ni moom mooy Moustapha Niass si la ñuy delluwaat ak yow ci kàllaama euh, wolof euh, di ñu xamle kan mooy xëy na kii nekk si kanam tuuti xëy na président assemblée nationale bu Sénégal. mu yàgg loolu ci fonction publique sénégalaise ki nga xam ne moom diplômé ENAM la nekkoon ancien directeur cabinet premier président sénégalais bi di Léopold Sédar Senghor moom nag ku yàgg ci mbirum politique la administrateur civil la Moustapha Niass nekk na yoon yi bëri ministre ak ñaari yoon premier ministre ci nguurub Abdou Diouf ak ci nguurub Abdoulaye Wade ñu xamee ko combatant bu mag au niveau international même fii ci suñu réew Senghor ba mu demee sax moom Moustapha Niass amul woon benn problème amul it benn gêne politique am bi mu amoon ci biir parti socialiste mais ba mu xoolee ba xool ni dañ koo xatal ci formation politique boobu moom Moustapha Niass dafa jël initiative créer benn partem tuddee ko AFP mu dem ci élection présidentielle ci mu am ci résultat yu baax taxoon na sax mu nekkoon koo xam ne moom ab faiseur de roi lañ ko tuddee woon moo tax sax nag ngir bëgg changement taxoon moom mu jàppale Abdoulaye Wade moom mi di Moustapha Niass mu jàppale ko ci deuxième tour élection 2000 yi mu juddoo ci kër ma Madiabel moom Moustapha Niass maître Abdoulaye Wade defoon ko ab premier ministre wante nag seen ànd taxu koo yàgg noonu ndax toog ñu tuuti rek ñoom ñu tàqali ko Moustapha Niass delluwaat di wutaat nguur gi ngir ñu voté année électorale ba ca topp di 2007 moom Moustapha Niass newaat waat dafay nekk candidat tel ko mu nekk candidature boo xam ne moom maître Abdoulaye Wade moo ko mujj gagné wante taxut mu bàyyi ndax 2012 ñëwaat na ci langue politique politique bi ni dafa bëgg a nekkaat candidat foofu nag ñu ne Moustapha foofu dafay jouer sa dernière carte mu nekkoon fa nag ci coalition Benno Siggil Sénégal bokk kaak cinquante parti politiques yu nekkoon ci gannaawam Moustapha Niass mu jot a nekk président ba léegi rek ma nga nekk ci troisième place ba kaka jiitu di Macky sàll Macky Sall moom Moustapha Niass wax ni moom dana ko jàppale ngir mu gagné élection présidentielle yooyu jàppale boobu nag amul benn condition wante bu amul it condition moom ki nga xam ne moom mooy Macky Sall bëgg na ko récompenser moom mi di Moustapha Niass def ko président assemblée nationale ndax coalition ba ñu nekkoon mu di coalition benn Bokk Yaakaar bés bu ñu gañee élection législative yi dana ko def moom Moustapha Niass ab président assemblée nationale mu nekk ku yàgg lool ci politique sénégalaise ñu fas yéene ko nommé président assemblée nationale mu di investiture boo xam ne dañ koy voté comme nañ ko defee ak moromam. mu fas yéene nekk moom bu nekkee président assemblée nationale le dauphin constitutionnel du président de la république wante nag du nekk loo xam ne dafay yomb loolu ndax valeur séparation effective des pouvoirs yi nga xam ne moom moo am entre diggante exécutif ay législative ndax moom Moustapha Niass dana ko taxawal. Voilà, merci à Fatou Conté. Barka, vous parliez tout à l'heure des hypothèses qui entourent justement euh, cette formule euh, politique trouvée entre, euh, au sein de Beno Boko, Boko Yakar. Et on, on sait également qu'il y a eu euh, avant euh, cette fameuse loi de Salengay qui ramenait le mandat à un an, donc le mandat du président de l'Assemblée. est-ce que après ce, ce feuilleton euh, Cicelo, il n'est pas possible que Nias se retrouve euh, dans cette euh, situation de, de, de mandat d'instabilité Est-ce qu'on va conserver ce, ce mandat ou est-ce qu'on va le, le ramener mais ce sera très intéressant comme test, euh, Papis Diaw, de savoir si euh, la, la, loi Sadendiaï, cette fameuse loi donc, qui a ramené le mandat du président de la République de 5 ans à, 1 an et qui avait été votée pour, euh, après le refus de Macky Sall de, de démissionner. Mmh. Euh, cette, ça, ça, cela avait été un peu l'arme atomique euh, utilisée par l'ancienne majorité pour, pour débarquer le président de, de, de l'Assemblée nationale de l'époque, donc euh, Macky Sall, aujourd'hui président de la République. Alors, théoriquement, Nias va être élu président de l'Assemblée nationale sous l'emprise de la loi Sada Ndiaye. Mmh. à moins qu'on ne la modifie, que l'actuelle majorité juge utile de la, de la modifier. Et ce sera très très intéressant comme révélateur si euh, on va voir si euh, la majorité va s'empresser donc d'abroger cette loi et de revenir à l'orthodoxie. Ça, ce sera la lecture euh, de la rupture, du changement et du, retour à des pratiques plus orthodoxes qui feront que le job de, de président de l'Assemblée nationale ne sera pas un job précaire, euh, révocable euh, après un coup de menton de, de, député ou après un an, ce qui fera que le, le président de l'Assemblée la, de, nationale sera juste un intérimaire ou quelqu'un qui aura la désagréable impression qu'il y a une épée de Damoclès permanente au-dessus de la tête et qu'il est à la merci de ses autres collègues. Mm-hmm. Euh, mais est-ce que aussi la la la, la réelle politique ne va pas dicter certaines franges de l'APR, y compris les adeptes euh, de la position la plus dure, à demander qu'on maintienne cette loi Euh, en l'essence, qu'on la, qu la, comme telle, mhm. pour voir euh, à quelle sauce euh, Moussa Fagnas va un peu manger ses, ses alliés et essayer de maintenir un peu la pression au-dessus de sa tête, parce que il faut encore le redire, au-delà de Moustapha Cicelo, euh, qui est quand même qui a eu une contestation peut-être un peu caricaturale, il y a des franges de l'APR qui pensent que le président de la République fait trop de cadeaux à ses, à ses alliés mmh. et qu'il ne serait pas prudent de tout leur laisser. Et peut-être que chez ces personnes qui pensent comme telles, mmh. elles pousseraient peut-être le président à laisser la loi euh, à l'instance. On, on va rester sur, euh, sur Moustapha Niass, hein, euh, qui a sa, sa, sa, spécificité à lui hein, euh, par rapport à son cursus, par rapport à, à l'étape dans laquelle il se trouve aujourd'hui. certains pensent que c'est son dernier grand combat politique, hein, vu son âge, puisqu'il fait partie de ceux qui pensaient qu'il fallait alterner, c'est de la place à la prochaine génération. c'est la juste dernière consolation qui lui resterait euh, ce poste d'assemblée, euh, de président de l'Assemblée, euh, qui devrait ne pas dépasser les cinq ans et pour quasiment peut-être flirter un peu avec la retraite. Absolument, Papis, vous avez bien fait de parler de, de l'eau de consolation. On ne peut pas ne pas présenter cette candidature, si elle est validée dans quelques heures, de Moussa Fagnas au, au perchoir comme président de l'Assemblée nationale, mmh. comme le couronnement d'un CV qu'on a vu, qui est, qui est, assez fabuleux quand même. Moustapha Niasse c'est c'est incontestablement l'un des poids lourds de la scène politique sénégalaise ce qui est là depuis Senghor il a été directeur de cabinet il a été peut-être le seul Sénégalais à être, euh, je cite de mémoire, peut-être deux fois ministre des Affaires étrangères, euh, euh, être Premier ministre. Donc c'est quelqu'un, euh, comme si on était dans le sport que vous maîtrisez très bien, Papis Diaw, on dirait que c'est l'un des plus capés. C'est l'un des plus capés sur la scène politique euh, sénégalaise. Il a son CV qui parle pour, pour lui. Mais il a aussi ses handicaps euh, et ses faiblesses euh, dont les moindres ne sont pas euh, justement cette, le fait d'avoir un peu duré, un peu trop duré sur la scène politique. Quelqu'un qui est là depuis 5 ans, on peut, pour les nouvelles générations, on peut penser que Moussa Fagnas a déjà fait son temps et qu'il était peut-être temps de passer la mais Il y a son âge qui ne plaît pas tellement à, à, à, à sa faveur. Est-ce que Macky Sall n'a pas voulu un peu euh, couper la poire en deux pour lui permettre d'avoir une sortie honorable Mais je pense qu'il serait encore prématuré pour qui connaît Moustapha Niasse, qui est sous ses dors euh, d'homme calme et pondéré, qui est un formidable animal politique, qui est un manœuvrier hors pair, qui, qui, qui, qui est une bête politique, qui sait ce que c'est que la, la politique. Mm-hmm. Est-ce que Moustapha Niasse, euh, avec le poste de président de l'Assemblée nationale, euh, va se contenter de cette dernière et ultime station pour le couronnement de sa carrière mm-hmm. Je pense qu'il est encore trop tôt pour se prononcer dans ce sens, Papis. rapidement euh, ñaari piège moo war a a euh, benn piège moo war a mën a am gannaaw bi ñu jógee ci xëccoo Moustapha Cissé Lo day xëccoo Moustapha Niass ndax dañ jàpp ne Moustapha nee na kilifa la ci gis-gisam warta xëccoo ak euh, ñi nga xamante ne xëy na même politiquement moo ne ba grade mm-hmm. ni koy waxee donc warta am coow a ñëw ñu jox ko li nga xamante ne moom la yellool mm-hmm. gis nañ ne amoon na coow ba nu ñu xam mu nu mu mujjee léegi nag ñuy laaj ndax li des maanaam jaasi boo xamante ne xëy na mën nañ koo yëngalaat hmm. ndax mu ngi ànd ci mandat un an bi ndax moo fi nekk Sara Ndiaye moom lañ ci utilisé woon à l'époque pour ñu andi mandat euh, président assemblée a un an hmm. mooy bi ñuy fexeel euh, Macky Euh, tey jii lan la ci euh, nekk menace ci Moustapha Niass ci liñ jëm nii bu ñu xoolee fi ñu jógee digganteem ak Moustapha Cissé Lo ak ñi ko ñi àndoon ak moom. waaw Papis comme ni ñu ko waxee léegi ci ci nasaraan euh, Moustapha Niass suñ ko falee tey su fekkee tabb nañ ko ci bopp assemblée nationale bi ñu ngi ko tabbee ci. loi wu Sada bi mooy loi bi jëlee woon mandat président euh, assemblée bi jëlee ko ci juróomi at indi ko ci ci benn at te loolu euh, ñi fi nekkoon ci nguur euh, gu mujj gi nguur gi Abdoulaye Wade bi ñoom ñoo ko fi defoon ginnaaw seen pexe bu mu jeexee pour Macky Sall démissionné Macky Sall bañoon démissionné mu nekkoon xeex bu metti diggante moom ak Abdoulaye Wade député yi daal di voté ne donte kon bañ na tekki nomb tànkam ñoom dinañ ko ko tekkil ci nii wala ci nële mooy ñu jëlee mandat bi ci juróomi def ko ci benn bennaat euh, ba fii ñuy wax ak euh, askan wi loi boobu moo fi nekk ce qui veut dire que Moustapha Niasse su suñ suñu changé wul loi bi su fekkee soppiwuñ ko su toogee benn at lay toog après député yi daal di xoolaat ndax dañ koy tabaat walla dañ koy teggi loolu nag mu indi ñaari problème bu ci njëkk bi mooy comme Euh, ñi fi nekk tey yàlla teg leen assemblée et puis jël euh, nguur gi dënk leen ko teg ko ci seen loxo dañu wax ne rupture mooy soppi euh, doxalin. Mm-hmm. est-ce que lu gën logique mooy nekkul woon ñu dellu ci li ñu xamoon mooy dooleel président assemblée. jox ko cëram ba mu mot sëkk ak kiiraayam mooy delloo mandat bi ci ci juróomi at. loolu ci ñoom rek la des bu leen neexoon tey tey tey bu assemblée bi toogee ñu daal di dal comme projet def seen proposition de loi ne dinañ delloowaat mandat bi ci ci juróomi at mhm. mais loolu yaakaar naa ne ñu nekk ñooñu Moustapha Niass commencé nañ ko junj ci journaux yi ne ñoom su leen lu leen gënal mooy ñu daal di jël mandat bi delloo ko ci ci juróomi at. waaye am na ñu nga xam ne ànduñu ci loolu dañoo ne mbir mi nañ ci tey nañ ko bàyyi ci ci un loolu nag dafa donte fësalaguñ ko. mën nañu yaakaar ne ñu ci sawarul ñuy delloo ko juróomi at bi mooy ñoo xam ne dañuy jege Macky sal te déjà sax am ci ñoom ñu jàpp ne euh, mandat bu ñu Macky dafa yéwén trop. ci ni muy séddalee mbir yi que ñu ngi doog a gis muy gulet président de la république di tabb koo xam ne bokkul ci partem di ko def président assemblée nationale Macky Sall nag wax nañu ko sànq euh, xëj na moom dafa bëgg a séddoo nguur gi ak euh, wane yaatuwaayam ak wane na du moom rek euh, su doon moom kese xëj na du mun daaneel Ablaye Wade mais dafa am ci ñu mu àndal ànd ak ñoom xeex donc euh, dafa séq ak ñoom teraanga ak kóllëre daf leen bëgg delloo kóllëre googu am na ñu nga xam ne ànduñu ci parteem donc su fekkee ci weer yi ñu jëm si kanam lu ci kanam rawul bët su dee dañoo bàyyi mandat bi ci un dinañ xam ne kon donte tabb nañ Moustapha Niass am na ñoo xam ne jàpp nañ ne jël mandat bi delloo ko juróomi at mhm. erreur la mhm. ci ci ci dé ci coppite boobu nar a am ndax dañ koy bàyyi un an wala juróomi at dina wane au fond ndax allié yu malgré discours yu ñuy wax ci kaw wóolantewu nañ wala wóolantewuñu mhm. voilà voilà euh, Barka Ba merci je rappelle que bu suivez une édition spéciale sur la TFM Euh, le prétexte, c'est la douzième législature ici au Sénégal. Incessamment, nous allons retourner en, à l'Assemblée avec, euh, dans cette collaboration avec euh, nos amis de la RTS. Vous pourrez suivre les travaux qui vont se dérouler dans l'hémicycle, mais aussi nous avons autour nos reporters, Adi Atala, Dissa Prera et Fatima qui vont nous accompagner. Donc, je rappelle euh, que les 150 députés seront d'abord installés. Ensuite, on va procéder donc à l'élection euh, à la composition du bureau euh, par un vote qui sera donc euh, secret. Tout ça, vous pourrez certainement euh, en avoir de larges euh, échos. Nous restons dans